de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay noonu ñuy njabootu Serigne Touba gépp di leen ñaanal li ñu koy ñaanal di nuyu Serigne Abdoulahi Mbacke ibnu Serigne Mahmoud mi nga xam ne moo nekk tey ci buntu këru Serigne Mor Soxna Diarra ak njabootu sëriñ Mor Soxna Jaara gépp di leen ñaanal li ñuy ñaanal kilifa gi di beral am nuyoo ak ub siyaar borom penc nu nekk di borom jataay bi di sëriñ Cheikh Tedd Mbacké mi nga xam ne moom la ñuy xoole tey sëriñ Bara Khouré mi tax mu daje ak rakkam yi mu nekkal yépp ak bokki taalibe yi di leen ñaanal li ñuy ñaanal seen kilifa yi ñu tudd léegi te mooy yàgg fi ak yàggale noo ngi nuyu bu baax sëriñ Bassirou Dieng mii moom sëriñ naar ak bokki njënn yëpp ak bokk yi fi daje yëpp di beral ak nuyoo ak siyaar daayira seeti sëriñ moo soxna jaare yëpp ci njiitum sëriñ Abibou Mbacké mii ak bokk yi mu ko seqal noo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp di sàkku seen ñaan yàlla nañ ko teewe déwén ci barke Serigne Touba su ko defee rek nu bàyyi xel fi nu daje ak li nu fi dajale ak ki tax nu daje fi fii nu daje béréb la li nu fi dajale mbir la ki tax nu daje fi di mbër yàlla suñu borom bi mu sàkk tànnal nu barab bii mu bokk ci barab yu sell yi barab yu barkeel yi barab yu ngëneel yi bokk ci barab yi nga xam ne aajo yàgg na fee fajoo moonu dénk mbir moo xam ne lanu ca war daje waxtaan ca la bokk muy lislaam ci loolu nag lañuy xame ne ginnaaw wolof moom ka muy xool ba di ko tudde mbër foo ko fekk day doon ko la mu doon mbër def na ca lool ñam ko seqal mënuñu ko ci loolu nag la ñuy xamee ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo di mbërum lislaam ji ndax moom fi mu fekk lislaam ak lim ci daj ak lim ci jëf taarix nettaleegul ku mel ni moom ci lislaam te bu amoon ba tey taarix nettali ko moom Cheikh Ahmadou Bamba rek la gis mu jël léppam ak féppam ak ñéppam muy ngir lislaam léppam nag neexut a peeg waaye am na lennam loo xam ne mën naa représenter léppam te moo di mbindam lépp lu mu bind rek ngir lislaam la ak ngir liggéeyal lislaam féppam itam neexut a peeg waaye am na fennam foo xam ne mën naa représenté féppam te moo di Touba loolu yegg na ci fo ab murit nekk te du Touba yi Touba foofa lay tudd ndax diggam ak Touba ak lim ci daj ba jot ci Touba ak ni Touba taamoo woon mu jot ko moom ci boppam loolu kenn xamul lu mu toll lu yaatu la lu xóot la waaye ñéppam itam neexul a peet ndax koo xam ne nee na yàlla jox na ko àdduna ak àllaaxira nosi bindeef yëpp a ngi ci loxoom ñëpp ñëxul a peeg waaye am na kennam koo xam ne mën naa représenté ñëppam te moo di ku mu nopp ci moom ku mu nopp ci moom rek mën naa représenté ñëppi sëriñ bi kon noo ngi jégalu bu baax a baax Serigne Jili Mbacke mu Cheikh Latif moo ëgg si léegi noo ngi koy siyaare bu baax di ko yóbbante siyaare ci kilifa ya ma ne sëriñ Touba ko mu noppi ci moom mën naa présenté ñëppi sëriñ Touba borom penc nii nag dafa bokk ci ñooñu nga xam ne sëriñ Touba noppi na ci ñoom. te li koy firndeel mooy ku Serigne Touba noppi ci moom rek fu mu nekk du fam Serigne Touba te loolu ku tàbbi ci pinc mi tey xool ni njaboot yi doxe ak nosoo gi ak yitte ji ak pas-pas bi te lépp ak taalibe muur ko ci ngay xamee ne kon borom penc nii ku Serigne Touba noppi la ci moom ndax ki Serigne Touba noppi ci moom yaar koy wër dafay nekk jàmbaar nekk njàccaar loolu moo nekkoon ci borom penc mi yàlla nañ ko yàlla fayal jataay bi miin nanu bu na gëni waa mboolem ñi fi teew ñu tudd seeni tur waaye yaakaar naa ne loolu dootul yomb ndax ñi nga xam ne ni la Serigne Cheikh tedd woo teewoon ku teew fii tey di nga xam ne wuy si nañ ko nu raw jortam gépp kër goo xam ne mi ngi askanoo ci kër Serigne Touba gépp kër goo xam ne mi ngi askanoo ci kër Serigne Mor Soxna Jaara ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ànd nag sëriñ bi buntu kër yooyu yëpp kër gu ci ne tey jii mbooloo bàyyi ko nañ fa ñëw fii ñooñu yaakaar naa ne du neex a lim ismul baax di kulal baax di rek boppi délégation yi ak bokk yi nga xam ne teew nañ fi. ñu boole sant ñëpp gërëm ñëpp dalal ñëpp fas yéene jublu ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi nar a yëkkatiku danañ jox kàddu gi Serigne Mourtala Mbacké moom Serigne Cheikh Bara mooy wax ci turu sëg yi bu noppee nu jox kàddu gi ki ci war a topp kon du nu guddal. ganaaw bu nu santee mbokk yi fi daje yépp noo jox kàddu gi Serigne Mourtala Mbacke moomu Serigne Mourtala Mbacke moom moom Serigne Cheikh Bara anam dafay ak bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alxalq mawlana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi dellu di santal yàlla bu baax di julliwaat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam santaat Cheikhul Xadim sunu yaakaar tey ëllëg di jaajëfal Cheikh Mouhamadou Diarra waaye di jaajëfal Cheikh Mouhamadul Amin Khoureja di jégalu kàddu yi ñu yëkkati yi suñu kanam yi kilifa waaye ndigal la rek loo xam ne dañ ñu ko jottaliloo mu bàyyi ci mboolem ku ci sëriñ Bara Xuree moo xam góor la moo xam jigéen moo xam mag moo xam ndaw kon ñu ngi tuub ci kàddu gi nu yëkkati ñu ko yëkkati ci kanam kilifa yu baax yi waaye ñooñu ko yónni ñi nga xam ne ñooñu ko yónni di suñuy kilifa ñoom it ñu ngi leen di jëgg lu baax euh, sëriñ bi sëriñ Seex Tàdd Mbakke mboolem sëti sëriñ Baara Xuréja yépp wax nañ ni seenu cant ak seen ngërëm ak seen pas-pas ci seenu taalibe nee na lépp ñu ngi la koy dolloowaat dellu di la gërëm waaye dellu it di la ñaanal waaye dellu di sàkku ci yow ñaan sëti sëriñ Bara Xuré ji wax nañ ne dégloo nga leen lool ci yorin wi nga yore sa kër bàyyi sëriñ Bara Xuré ji sëriñ sëñ Bara Khourédia wax nañ ne dégg nañ lool ci ànd gi ko ànd ak mboolem koo bokkal sëñ Bara yi waaye waaye sëriñ sëñ Bara Khourédia it wax nañ ne dégg nañ lool ci noo leen uufe ñoom ñëpp njaboot gi kenn jooyut way juram ñi fi seen way jur ne kenn xàmmewul way juram ak sa jëmm ndax sa taxawaay bu rafet kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant mboolem koo bokkal sëriñ Bara Khourédia xam naa ne kàddu yi gannaaw wax nañ ne temps bi dafa dem lu bari kon du doon kàddu yu gudd xanaa di kàddu yi sant rek yoo xam ne bi ci jiitu mooy sant sunu kilifa ak Cheikh Mountakha ak sunu kilifa gu baax Géefa Mbakke di sëriñ Abdoulahi Mahmoud sëriñ Jiili teewal ko fi léegi dina yëkkati kàddu moom it ñu ngi koy sant ci teewaayam ak taxawaayam bu rafet moom mi yor kàddu kër sëriñ Maam Mor Soxna Jaara yépp ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di wax ci kàddu tur yi kàddu goo xam ne dafa bàyyi ko ci sët yi wax nañ ne ñu ngi sant ay jàmbaar yoo xam ne dañoo ànd ak ñoom liggéey bii ñu doon defar sëriñ Bara Khourédia sët yi wax nañ ne ñu ngi leen di sant bu baax kenn la ci ñooñu Serigne Gana Messere Makhtar mi nga xam ne moo doon def waxtaan wi léegi waxtaane ci Serigne Bara lu bari waxtaan ci Serigne Touba lu bari di kenn yi ci dëkk bii di Saam waaye di kenn ci njabootu sëriñ bi waaye di kenn it ci ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéeyu màggal gi kon sët yëpp wax nañ ne ñu ngi koy sant ci taxawaayam bu rafet moo xam ci li weesu la moo xam màggal gi moo xam ci li mu doon def léegi taxawaay yu rëy la yoo xam ne umpul kenn kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm wax nañ ne ñu ngi sant bu baax ku mel ne Serigne Pape Fall mi nga xam ne moom it kenn la ci ñi dëkke dëkk bi kenn la ci njabootu sëriñ bi niñ ko waxe waaye kenn la ci biir liggéey bi ñu doon waajale màggal gi moom it sët koy sant bu baax a baax ci taxawaayam bu rafet ak ak jotalam ci liggéey bu rafet bii wax nañ ne ñi ngi sant bu baax sëriñ Moustapha maire bu Misra wax nañ ni ñu ngi koy sant ndax moom doom la ci kër gi bokk ci kër gi waaye yàlla jox ko ciru àdduna boo xam ne it daf koo boole di ci liggéeyal ay maamam di ci liggéeyaat ay baayam kon ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bu rafet boobu eh, di sant bu baax eh, sët yi it wax nañ ne nag ñu ngi santante ñoom ci seen biir ndax li ko waral mooy ku xool sa bopp rek sa morom ngay gis ku xool sa morom it sa bopp ngay gis ci taxawaay bu rafet ci màggal bi ak lu dul màggal gi ndax yàlla dimbalee na leen seeni jikko rafet seeni xel rafet seenu jaxasoo rafet ba lépp lu ñu sumb di ko doxal loola ci rafet rek lay mujj màggal gii ci la bokk ñoom ñëpp a takku àndandoo joxe seen temps joxe seen alal joxe seenu jot ci lépp fi ñu leen féetale woon dara manqué wuti màggal gi nag daa am borom ndax sëriñ Cheikh mii mooy borom màggal gi moom ñii mu bokkal sëriñ Bara Kholy ñun nag ñu doon ci ay sët ñu am wet gu ñu doon doxloo koo xam ne it euh, jàpp naa ne wet googa mbat na sëkk ndax sëriñ bi ci boppam wane na ak cantam ci wet googa te loolu rek lañ doon sàmm sëriñ Bara Khourédia nag mel ne ne bis bu nekk ñuy xam ne ku jara liggéeyal la bis bu nekk yi ñuy xam ne ku yàlla gërëm la bis bu ne ñuy xam ne ku sëñ Tuubaa gërëm la ndax nii mbiram sëñ Touba demee nga xam ne lu ci mujj ñëw gën la weesu mbirum sëñ Bara Khourédia noonu la demee loolu nag ku am ngërëmal yàlla la mbiram di mel noonu te loolu toujours ñu wax ko ci waxam te moom daanaka waxal boppam yëg na cër bi ko sëñ defaloon ba tax na daana wax ne sëñ Touba xëyewul kenn gontoom waaw ndax sax dafay nuru ne moom da koo xëyaloon ndax bu dee ci liñ xam ci waxtu joxew tur ci nit bu ganee jamono day mel ni am xëy lañ ko baaxoo def te sëñ Tuubaa dafa xëy fi sëñ Baara Xuree jokkoon jox koo tur ba noppi wax waxam juree jooja wax ne def naa ci moom lool bu demoon ba mën a ngàbbu sata la ma ne ko jot li ma ko defu ko dara du ko ci fekk kon moom ni ko sëñ Gànna waxee léegi ci biir waxtaan li nga xam ne ki xam-xàmme am kàttan moom lay wuti ci sëñ Tuubaa sëñ Bara Khourédia bi mu gënee jamono la ko am ci sëñ Touba su yemoon ca loola ndax sëñ tubaa daa wax ne dafa mel ni da koo defar defar goo xam ne ak yàqu dootu ca topp waaye moom dafa mel ne bi mu yeggee fi ñi nga xam ne li ñuy sàkku ci kattan lañ koy sàkkoo moom it daf ko sàkkuwaat ba dellu amaat ngërëmal sëñ Touba kon dë bi mu ganee am na defaru sëñ Touba waaye liggéey ba amaan ngërëmal sëñ Touba moo tax mu daan bàkk wax wax loolu xam nañ ne it ku mën a dimbale wala woon ndax luy dañ koy sukkandiku ci waxam rek ndax ay ndaw lañ fekke wuñ jamono waaye euh, daana wax ne yow laa yaakaar june teeliwuma la doo layam kon ku xam nañ ne kon ku mënoon a dimbale la ku yaatu woon gannaaw la it ndax lii di màggalu Tuuba waxtu woo masaan nañ yegg si kenn du dënale ci këram moo xam waxtu añ la moo xam waxtu reer la te du saxaar gi dafa si te moo ko daan taamoo noona ngir bëgg mbooloo yi nga xam ne ay gani sëñ Tuubaa lañ ku fi yegsi rek sëñ Bara Khourédia xéewalam yooya nga xam ne lu landi la woon yegg fépp boo wàccee man caa xéewal mel na ni ku amoon fulla la ci loolu lañ koy sukkas du ko ci wax ndax daf naa wax ne woyof naa tooy waaye bëgguma ku ma ci dimbale mel na ni ko xamoon nit ñi la rawatina ci ji jamono nga xam ne dafay mel ne ki la wut si mën naa am muy ki lay yàq ki la sori sax mën naa muy ki lay defar moo taxit daana wax ne man baara de xawma ku ma bañ waaye xam naa ko yàq samay wax kon yooyu yëpp buñ ko sukkandikoo ci moom rek dañuy jàpp lu bari ci mel noonu na nga xam ne symbole la ci yoonu murid doon symbole ci kër borom saam bu ñu koy defal lu mel nii la xarwa war naa mel nii ak sax li nga xam ne jàpp naa ne ñun suñu doxin buñ ko gënee yokk gën gën koo amélioré wu suñ bàyyi xóoraja dimension fi mu war a yegg yaakaar naa ne bu ñu doxalee doxin wu fullawu euh, mbiram dana gën a yëkkatiku lool ndax dafa am ngërëmal sëñ Touba li gën a loon sëñ Touba yi muy jumaa ji nga xam ne da ko fee bàyyi woon sëñ Baye Khourédia dafa bokk ci ni ni ni jumaa Touba doonee symbole ci yoonu murid sëñ Baye noonu la bokkee ci ñi nga xam ne ay symbole lañ ci jumaa jooju nga xam ne ñoo ko taxawal def bëggug sëñ Touba go léegi il faut ñu xam ne it sëñ sëñ Baye moom mooy ki nga xam ne moo mas a gàddaay këram ci misaal ngir liggéeyali Sëñ Tuubaa loolu it misaal bi ci joxe mooy moo wuutu woon borom sàmm moomoon Mbàkke lotise ko daan ko doxal ndigalam di fa dox Cheikh Mamadou Fadal mi doon liggéeyal Sëñ Tuubaa jumaa ji soxla ko ñu ànd liggéeyu Sëñ Tuubaa boobu mu jaral ko jóge Mbàkke dëkk si fii fi Tuubaa ngir ñu ànd taxawal bëgg-bëgg sëñ Tuubaa wu ca mooy jumaa ji kon loolu it lu mat santewaat yàlla la mooy sëñ Bara Khourédia moom moo bàyyi këram bàyyi dëkkam bàyyi fa ak njabootam ngir ñëw ci bëggu sëñ Tuubaa gii jumaa ji ngir nu nu jumaa ji yegge looloo waral mu dëkk si fii kon loolu lu mat lu mat sant yàlla li ci des it li ñuy wax kër mag moom ci yoonu murit sëñ Bara Khourédia ko njëkk a def kër mag moom ci yoonu murit sëñ Bara Khourédia ko njëkk def te mooy kër borom saam gële kon sëriñ ngi noonu boo xam ne bu rëy ay may la sëriñ ngi boobu boo xam ne jàmbaar la ci lislaam jàmbaar la ci yoonu murit sëriñ a ngi woowu boo xam ne képp ku koy liggéeyal te am ci ful la ca teg sa tànk fu leer war ngaa rafet njot ci bu wér a wér a ndax mbiram matte na ko sëkk kon nag maa ngi soññ sama bopp di soññ ñi ma ko bokkal ci wet gi ñu toll ñun te mooy wetuk sët ñu dolli sunu pas-pas ci liggéeyal ko dolli mànkoo dolli joxante loxo dolli ubbeeku nag te xam ne moom ku ubbeeku la woon suñ bàyyi xuli kenn ku nekk séqoon séqoon naag yow loo xam ne lii des na ko wax ci biirum néeg lii des na ko wax ci pénc lii des na ko wax ci ay rajo ki télévision kon moom séqoon nag ñëpp ku séq ak ñëpp nag te mel noonu am ngërëmal yàlla mel ni mel soo koy doxal te amoo genn ragal te la ngay dox ca teg ko fi nga ko war a teg teg ko ci teggin teg ko ci fërlewu teg ko ci ak dogu mën ngaa yóbbu mbir ma fu sori te ka fi ne nii li tax ñu war cee góorgóorlu mooy fu ñu yóbboot suñu bàyyi waxu rek ñun suñu njariñ ndax moom mel na ni muy mel am na li muy am jot na li muy jot ba laq man yàlla ak yonent bi ak sëriñ bi ak boroom saam wuy ju boroomam kon lépp lus ko defelati rek yow moo ko def day day day réperté wu ci yow man awu benn sët boo xam ne tey man ngaa dox ba yëkk siñ bàyyi ko ñu mu ne fàngu ñu koy séen te du ci yow la gën ci yow la gën a baax kon loolu it nañ gën a takkuwaat gën a góorgóorluwaat boole suñu bopp te yokk jéego yi jàpp naa ne bu doxin wi gënee bar rek liggéey mën naa gën a yàgg fu sori leneen li ci des it yéen taalibe yi ñun sër yi loolu loolu paar la ci ñun sër yi xëy na beneen bi ak suñuy kilif waaye paar bi ñu am ak yéen mooy ñu ngi leen di soññaat ci liggéeyu sëñ Baara Khourédia bii ak liggéeyu borom saam Mamor Diarra jaar Diarra mi bokk ak sëñ Tuubaa ñaari wayju di magam piir du magam ci saayir magam piir la Hmm? parce que ñun ñu yoonu murid yëpp ñooy wax ne sëñ Touba moo tànni bokkam tànni doomam tànni taalibam kon xanaa léegi échec la ci mu tàng magam ci ñun murid yëpp d'accord nañu sëñ Touba amul échec hmm? léegi nag ku amul échec ndax tàng nay taalibam amul échec ndax tànn nay doomam amul échec ndax tànn nay rakkam ndax day am échec ci tàng magam loolu c'est faux ay ay ay ay saahir magam ci saahir c'est faux loolu amul magam piir la ca saahir yi ñuy wax ni saahir nit a koy def nit mooy am suwaa léeg saahir waaye pire mooy baatin te yàllaa ko def yàllaa defu bokk te moo ko def muy magam magam piir la ñay di rakkam pire ñu ay doomam pire ñu ay taalibe pire saahir amul te bala nga woon xam ne du saahir nga jéem nga jëm koo folli borom sàmm ku ko ku na bëggoon a folli ne dootul magum dootul magi sëñ Tuubaa doy na la sëkk nga dund ba faatu te du dagg kon du magam ci ci du magam ci saa yi magam piir la loolu loolu mat xam kon yéen taalibe yi na ngeen dollee takkuwaat te góorgóorlu te xam ne sëriñ ku am sëriñ bu mat sëkk am ful la dox ni war a doxe mel ni mu war a mel jëflante bokk gi jëflante taalibe gi jëflanteeg jullit yi bañ xam kan mooy sëñ Bara Fooy nga am ko ba noppi te te te yokkoo say jéego meloon ni nga war a mel yaa ngay ñee koo xam ne tollu la ci wex mbaa yaa ngay fréquenté koo xam ne tollu la ci wex mbaa yaa ngay seeti loo xam ne am nga lu ko fuuf waaye danga koo gisul moo tax ngay wuti leneen kon na ngeen doolee takkuwaat baax a baax a baax boole seen bopp jëmmal penc mi jëmmal seen sëriñ si jëmmal biir kër yi bu ngeen ko doxalee diir bu diir bu gàtt di ngeen xam ne li ngeen am yéen dong ko am sëñ Bara Khouré jël la sëñ Touba tudd defar ko mu liggéeyaat sëñ Touba gërëm ko hmm? kon loolu su ngeen ci dollee jàpp mën naa gën a baax bi ki ne may wax ne saam dafa bari ñu ko dëkkee te yàlla def na seen aslamtu si du kër sëñ Bara Khourédia daanu dajul suuf waaye yéen ñi nga xam ne da ngeen a saam bërëbu sëñ Mamor Jaara la suuf si suuf Mamor Jaara sëñ Bara Khourédia doonoon kenn ci jàmbaaram yi fii ñuy wax saam gu sëñ Baye Khourédia mu ñëwoon fi ngir jaamu fi yàlla ak liggéeyal fi wéyu juram ak liggéeyal fi sëriñ yàlla def na nag sëñ Touba fu mu dox ba yegg fa rek mooy borom taalib yi nga xam ne dañoo dëkke saam te defuñu aslamtu si ci kër gi ma di leen wax ne bu leen ko xàmmee ak seen kër ya ngeen def aslamtu si xamul lu tax mooy dafa bari lu ñuy woote ci dëkk bi loo xam ne duñ leen gis ni leen war a gise te jàpp naa ne taali bi moom taali bi rek la li ko li ko tax a doon taali bi mooy sëñ Tuba kam yi topp it sëñ Tuba la ko toppee kon bu bu amoon seete ak xaajale da ngay dëkk ak say taalib waaye li tax booy dëkk da ngay dëkk ak ñëpp jàppe ñëpp taalibi sëñ Tuba tax kon saa booy santaane yi ci sëñ Tuba rek ngay jaar santaane kilifa gu baax gi lu muy santaane di ngeen ko dégg fii ci jumaa ji ak ñi muy yëgle lool muy wax ne li may santaane nangam la képp ko yaakaar sëñ kon bu leen ko salanglu lii di am ci penc mi moo xam seet seetal la moo xam ab liggéey bu ñu fiy def bu leen ko selanglu dee leen ko wuy si wuy si gi mooy tekki ne ñii fi def aslamtu nafsi ak ñu ko def feneen ñëpp taalibe sëñ lañ li ñuy liggéeylu it ci sëñ Tuubaa li ñuy sukkandiku rek di ko liggéeylu kon lu lu ngeen fi déggati ñu yëgle ko fii ci penc mi koo xam ne sa buntu kër mi ngi fi ubbi ko ci ci rëddu saam nga xam ne mooy 2000 parcelles yi yi nga xam ne seen nañ ko fii muy saamu sëñ Baye Khourédia liggéey bu ngeen fi déggati njaboot sëñ Baye Khourédia woote ko ngalawaay su kër ga yëpp mënta wuy si it na ngeen fa tànn ñu wuy si ngir jëmmale ko sëñ Tuubaa loolu yi ñu ngi ko soññewaat damaa jël nag ñi nga xam ne ñoo fi def aslamtu nafsi ñooñu moom seenu ñàkk wuy ji ak ñàkk xam dëgg la ndax li nga moom moom boo ko wuy jiwut xanaa xalaas xanaa keneen di ko wuy wuy si moom du war a man a ne waaye ñi nga xam ne dañ koo dëkke nag te dëkke fi ngir Sëñ Tuubaa ñooñu laa bëgg yi ñuy wuy si liggéey yi ñu fiy santaane ngir Sëñ wa bi ci des it nag ñu am lu ñuy wax ci dëkk bi mooy dëkk bi amul courant bu doy courant bu li ñuy wax nag teguñ ko ci ba ngir wax di wax rek mbedd yi boo fi jaaree léegi poto yi mën nga koo wàññi poto yu néew moo fi ne nit ñi dañuy obligé sax di taal seen làmp ci seen buntu kër ngir mbedd mi leer Tuubaa nag weesu na loolu sàmm mi mi nga xam ne moom lañ tollale foofu nag loolu yaakaar naa ne lu war a dañ la ñaaw na lool ci gis-gis bu doon lu ñuy dégg it mu ñaaw ci dégg-dégg dëkk bu baram saam sancoon sëñ Ba Khourédia def fi lim fi def def lim def ci yoonu murit ab dëkkam ba nëgë ni mënuñoo am courant bu doy mënuñoo am am ndox tey jii li mu doon doon màggalu sëñ Ba Khourédia bari na kër yoo xam ne amuñ ndox lu naqari dégg la nag bi ci amuñu yoon amuñ fajukaay ci dëkk bu yàggee nii. bi ko borom sanceeg léegi rek loolu war na fa waxuma la nag sëñ Mor ko santoon léegi nag ca man dama dama yor sama course jaar mbedd yu bari parce que mbir nit nit boo koy wax mbir boo koy wax it da koy justifier ci dara ba bi ki jugoon ki toog fii ba la bëggee weddi su jugee bu nit ñi ñibbiwaat ñoom ci seeni kër danañ tëj bët li nga wax ndox mi ñëpp mën a waat ne fii saam doyu fi waxtu wii may wax ak yow robinet yu bari du xelleegul balay xelli ay quatre heures du matin ñëpp mën a waat ne hôpital Fawzeyni baa ngi nii du hôpital bu am solo boo doon defar ngir population boo respecté wut saamit waaye di defar ngir population sax war ngaa mën a waroon war ngaa mën a jokkale yoon wi ngir barabu fajukaay bi fi ne te yàlla def na nag barabu fajukaay bii ci suuf su borom saam la nekk Mamor Diar bee ñu fa defit hôpital bu yàggut bii nga xam ne niveau 3 la di bu am solo boobu it mi ngi ne ci biir suuf su borom saam kon yi am solo yëpp ci dëkk bi bari ci yoo xam ne ci suuf su borom saam la ko yàlla dogale ba nëpp ñu fàttee nii suufam ñu fàttee ko nii ci cër yi mu war am parce que nag dëkk boo ko xañee ndox xaañ ko courant xañ ko fajukaay xaañ kow yoon lan moo des lekk kon day mel ne waa saam ñoom bu du ni yàlla wane moo yor wërsëg yi waa saam dañuy faatu parce que xañ nañ leen li ñu leen mën a xañ lépp li des mooy lekk rek li ñu leen mën ta xañ te yow yàlla ko yor loolu nag lu lu doy waar la loo xam ne lu luñ war a luñ war a jubbantiwaat la su fekkoon ne dañoo jubit su fekkoon ne dafa doon loo xam ne dañoo jub maa ne sunu kanam di ñëw du jar wax ndax da ngay jàpp ne dana si waaye li ci ñaaw kay te naqaree wax mooy dañoo wër courant bi nii la ñu def def ñu nii def ñu nii def ñu nële ndox mi it wakasa boo doxoon fii deux kilomètres rek fi ne da ngay gis robinet yi di xelli ca biir saam moom amul ndox dox naa fii fii mbedd 30 bii nga xam ne moo séparé saam ak jànnatu te pourtant jànnatu ci saafu suufu borom saam la ba nekkaat ci suufu euh, moomeelu sëñ Baye xëy na beegutoo mbaay la tudd jànnatu ñu jaax ko waaye boo ñëwee da ngay gis courant bi topp 30 bi def na le boo doxee ni tuuti gisaat loolu boo gisaat ni gisaat loolu boo gisaat ndox mi def même chose xam nga yooyu nag mbir nag bu la wëree fu ne te amoo ca ka koy doxal respecté wu la ka koy doxal respecté bu doon lu la jum nag te yëgseegul jërul yàkkamte ndax da ngaa ne yëgseegul la wëree fu ne bu bu doon njariñ bu doon aw lor te wër la fu ne yëgsiwut ka koy doxal respecté na la lool moo tax moo tax dugg fa waaye bu dee njariñ ñu wër la fu ne te dugg fa ka koy doxal respecté wu la moo tax loolu lu mat a lu mat lu am solo nag lu mata a bàyyi xel te nag Touba ni muy doxee mooy état Sénégal bu fi dugal dara daf koy teg ci ay yoxo yoxo yooyu ñooy séddalewaat fi yëf yi di jëm loxo yooyu kon ñoom ñoo xamul fi saam féete walla ñoo bëggut a sédd saam dara moo tax saam manque li manque te xoolal 2000 maisons maanaam ñaari junni kër su fekkoon ne dafa beru fële ajuwul ci nii ni nit ni état di joxe état ni mu wut ñàkk a respecté mille maisons parce que 2000 maisons boo ci doon boo ko calculé woon ci kër gu nekk cinq personnes daf lay jox 10 mille personnes 10 000 personnes nag état du ko am fenn di ko seetaan muy mar ak xiif ak lëndëm ak nangam nangam état du def loolu kon ñu li ñu li ñu ñàkk lépp ndeke fi ñu aju ñuy séddale te séddul ñu looloo ñu ko xam waaye xajuñu ko ci population bu néew xajuñu ko ci population bu amul xel wala population bu doxul la mu war a dox parce que dañuy fay ay impôts ñun ñëpp dañuy fay ay facture ñëpp dañuy dañuy dañuy doxal li war a dox te état ci ci impôt lay sukkandiku ak taxe doxal li muy doxal. kon mi ngi état mi ngi sédd Touba li mu war a sédd Touba ñoom ñoo séddul sàmm loolu lu mat a wax la maa ngi jégalu maa ngi guddal bu dee wax ji dafa melul ni mu war a mel loolu ci man la. bu fekkee ne mel na ni mu war a mel ci ñi ma yónni woon allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah ulaa'ika a'daa'ullah wa ulaa'ika humul muhtadoon assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh nee na njaboot gi nee na mboolem njaboot gi kenn ku ci ne fa mu nekk xam na ne moom nga fa nekkal ku ci ne ku ci ne kàddu ngay déglu fas yéene di jëfe xalaatam di dox ci bëggam ne sëriñ bi ne loolu lu xam la lu mu jàpp loolu lu mu fekk la te xam ne lu mu gën a dëgëral ci moom la ne sëriñ bi xolam sedd na baax la yaakaar ni dolleeku na baax la ne nun nag bu xolam seddee yaakaaram dolleeku jàpp na ne liñ bëgg danañ ko am. moom nag sunu cant. moom nag sunu cant. ak sunu ngërëm. ak sunu bëgg. moom rek lañ koy wax. ndax amuñu lu may barab bi. ndax amuñu lu may barab bi. kon nag yàllaa ko fi teg. kon nag yàllaa ko fi teg. ñu nangu ko bu baax. ñu nangu ko bu baax. muy rafetalit. muy rafetalit. li ñu suñu borom booleeg moom. muy rafetal li ñu suñu borom booleeg moom. muy rafetal li ñu suñu borom booleeg moom. mu jaboote mu. mu jaboote ñu. te nangu ko. te nangu ko. te yaatal ko te yaatal ko. kon nag sant nañ ko bu baax nee na njaboot gi mi ngi leen di sant bu baax nee na njaboot gi mi ngi sant bu baax na suñu digganteeg lii sëñ Mourtala doon wax it suñu digganteeg lii sëriñ Mourtala doon wax nag muy jamonoy dëkk bi muy jamonoy dëkk bi mën nañ ne day man nañ ne day ak sant rek lañ am ak cant rek lañ am ndax fii de. ndax fii de. ku ne fi jàng. ku ne fi jàng. mbaa nga amam nopp. mbaa nga amam nopp. bu suñ baara masaa ñëw fii. bu suñ baara masaa ñëw fii. sooy wax. sooy wax. danga nga yàq da yokk sa kàddu. da yokk sa kàddu. wala ka ngay waxal. wala ka ngay waxal. ngeen dem ba sori. ngeen dem ba sori. ndax sàmm si. ndax sàmm si. ñoo fi daa tase. ñoo fi daa tase. ñu tuddee ko barkee ji. ñu tuddee ko barkee saamit. saamit. di dëkk boo xam ne. di dëkk boo xam ne. borom saam. borom saam. da koo askanale ci turam. da koo askanale ci turam. ni Touba demee. ni Touba demee. muy dëkk bu yaatu nag. muy dëkk bu yaatu. Serigne Baara. sëriñ Baara. daana wax ne. daana wax ne. xajal leen gan ñi. xajal leen gan ñi. sooraal du tiim ab dëdd sooraal du tiim ab dédd booba ku mel ni ñàkkut kon tey boo dee boobee ku mel ni ñàkkut kon tey da koo tegoon fi barab da koo tegoon ci barab jël gol jël gol teg ko fi barab teg ko fi barab jibaan jibaan alaaji suñ usmaan Dulo alaaji sëñ Ousmane Dulo Ousmane Dulo Ousmane Saw alaaji Ousmane Saw ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu bokkoon fi nekk ñu bokkoon fi nekk boobe jàppuñu woon ne boobe jàppuñ ne lii dana fi xew lii dana fi xew saam nag saam nag fii mooy xol bi. fii mooy xol bi. ndax fu ci ne. fu ci ne. dëkk bi dafa dem bàgg fa. dëkk bi dafa dem bàgg foofu. Hmm. ab quartier. ab quartier. ñu di ko dàkkanteel. ñu di ko dàkkantal. fii nag da doon ab dëkk. fii nag da doon ab dëkk. mu dikk ba dëkk bi ëmb ko. mu dem ba dëkk bi ëmb ko nag. ñuy wax saam. ñuy wax saam. waaye genn saam fi am. waaye genn saam fi am. goog sëñ moor Jaara. goog sëñ Mor Jaara. sëñ Baara nag da ci am kër. sëñ Baara nag da ci am kër. keneen dafay am kër. keneen dafay am kër. waaye genn saam waaye genn saam rek fi am. kon nag kon nag. lii sëñ bi distaani. lii sëñ bi distaani. ñoom dégg nañ ko. ñoom nag dégg nañ ko. déggati ko déggati ko. waaye lu yàlla dogalagut. waaye lu yàlla dogalagut. mënuta am mënuta am. dogal mënatugut a am. mënagut a am. bàyyi nañ ko xel nag ñoom it. bàyyi nañ ko xel nag ñoom it. jàpp nañ ko jàpp nañ ko. kon sëriñ bi moom mbir moom. kon sëriñ bi nag moom mbir. moom it daanaa ciy wax. daanaa ci wax. di ci déglu di ci déglu. yaakaar naa ne foofu la toll yaakaar naa foofu la toll waaye na nga gën ñoo dollee ñaanal waaye na nga dool ñoo gën ñoo dollee ñaanal ba liy bëgg-bëgg ba liy bëgg-bëgg mu saafarawu mu saafarawu ci sa kanam ci sa kanam te ànd ko ak yow te ànd ko ak yow sant na ñëpp nag sant na ñëpp nag nee na gërëm na ñëpp gërëm na ñëpp sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi nga xam ne mooy sëñ Abdoulahi mooy sëñ Abdoulahi moom sëñ Mor Diarra moom sëñ Mor Diarra sëñ Abdou sëñ sëñ Abdou sëñ Jili nga yor kàddoom sëñ Abdou Xaadir mii moom sëriñ Abdou Latif yor kàddoom yi nga wax kàddu yi nga wax sama kàddu sax sa ay kàddoom sax. sooxe na ci moom. sooxe na ci moom. ndax lu mat a wax. ndax lu mat a wax. wax nga ko wax nga ko. kero bii. kero bi ñu def plateau bi. bi ñu def plateau bi. mi ngi dégg sa kàddu. ne mi ngi dégg sa kàddu. kàddu ga matale lool. ne kàddu gi matale lool. te rafet lool te rafet lool. lépp nag. lépp nag. sunu borom dana koo boole. sunu borom dañu koo boole. waaye loo gis ci ñun. waaye loo gis ci ñun. suñu digganteek sëriñ bi suñu digganteeg sëriñ bi lu baax rek lañu bëgg ne lu baax rek lañ bëgg fas yéene déglu ndigal fas yéene déglu ndigal te dooni taalibi te dooni taalibi bokk gi fi yàlla jaarale bokk gi fi yàlla jaarale coobaree suñu borom la coobaree suñu borom la fas yéene nañ koo téye ne fas yéene nañ koo téye ngi ñaan nee na ñu ngi ñaan. jataayam bi jataayam bi. sunu borom bàyyi ko fi. sunu borom bàyyi ko fi. ñu ànd ak moom. ñu ànd ak moom. ba lépp lu mu sumb. ba lépp lu mu sumb. bokk koog moom. ñu bokk koog moom. dox ko doxin wu rafet. dox ko doxin wu rafet. ëtt bi nga xam ne nag. ëtt bi nga xam ne nag. fi la ñuy àttewu. fi la ñuy àttewu. muy ëttub Serigne Touba. muy ëttub Serigne lu dox. lépp lu fay dox. fas yéene nañ ko ànd ak moom. ko ànd ak moom. fii di reeru bi. fii di nga xam mooy di reeru bi. lépp lu mu fiy doxit. lépp lu fiy doxit. fas yéene nañ ko ànd ak moom. fas yéene nañ ko ànd ak moom. kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi. kon nag yàlla na ko fi yàlla bàyyi. te sàmm ko te sàmm ko. te sàmm njaboot te sàmm njaboot bi. di suñu kilifa it. sëriñ bii di suñu di suñu sëriñ di sëriñ Seex it. di suñu ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan. suñu borom nag. suñu borom nag. foo dagaane. foo dagaane. te ñaan fa te ñaan na la faa wuyoo na la faa wuyoo. kon nag kon nag yàlla nu wuyoo fépp. te muy ngëneel. ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. te fas yéene bis bii. te fas dégg nañ ko. ñëpp dégg nañ ko. ku dikk ku dikk yàlla def na nga ñëw yàlla def na nga ñëw ku dikkutit ku dikkutit am nga yéene ñëw amoon nga yéene ñëw ci bis bi ku ñëwutit ku ñëwutit ñaan nga ñaan nga mbaa sa mbokk baa sa mbokk baa sa xarit baa sa xarit loolu nag loolu nag di aw yiw di aw yiw mbindee fi jaarale ko suñu diggante ak ñoom mbindee fi jaarale ko suñu diggante ak ñoom gis nañ ko bu baax ne gis nañ ko bu baax ñu ngi fas yéene ñu nit ñu nit ñu ngi fas yéene lépp lu ci nit nekk rek lépp lu ci nit nekk bu ko déggee bu ko déggee dana wuti ndaw dana wuti ndaw te dana ci fas yéene moom it te dana ci fas yéene moom it yónnee fa yónnee fa dox ca dox ca lam man lam man koog yéen ànd koog na bokk yëpp ne gërëm na ñëpp ne gërëm na ñëpp mbokki taalib yi mbokki taalib yi nga xam ne yéen nga xam ne yéen it fee nekk seeni waajur dafee nekkoon ba tey ñu bokk fi nekk ak yéen ba tey ñu bokk fi nekk ak yéen seen tànkit ko seen tànkit su ko loolee gis na ko ne loolee gis na ko mi ngi leen di ñaanal ne mi ngi leen di ñaanal lépp lu ngeen bëgg lépp lu ngeen bëgg. te bëgg ko ci sëriñ bi. te bëggee ko ci sëriñ bi. nga ko sàkku. te di ko sàkku. yàlla na ko seen borom def. ne yàlla na ko suñu borom def. mi ngi leen di dénkit. mi ngi leen di dénkit. ngeen fas yéene dooni gor. ngeen fas yéene dooni gor. dooni jullit. dooni jullit. te dooni taalibi. te dooni taalibi. nee na nee na. loolu bu ngeen ci tënkoo. loole bu ngeen ci tënkoo. lépp lu ngeen soxla. lépp lu ngeen soxla. te bëgg ko te bëgg ko. jàpp na ne. jàpp na ne dana jàpp ne. dana jàpp ne. sant na ñëpp. ne kon sant gërëm na ñëpp. gërëm na ñëpp. li maanaam li nga xam ne bii dafa aju ci commune bi. li nga xam ne dafa aju ci commune bi. muy Abdou Lahad Ka. muy Abdou Lahad Ka. mbokk la mbokk la. dikk na fi dikk na fi. wax nañ ko ko wax nañ ko ko. waxati ko ko ko ko. moom nag moom nag. lu ñu tuddee administration. lu ñu tuddee administration. moo ci gën a jege. moo ci gën a jege. fii nag. fii nag. ni Mourtala waxit ni si Mourtala bi waxee. yaari yëf rek a fi nekk. yaare yëf rek a fi nekk. peuple bu mat peuple. peuple bu mat peuple. wala jëf joo xam ne dañ koo nataal ci sëriñ bi. wala jëf joo xam dañ koo àtte ci sëriñ bi. di ko jëmee ci sëriñ bi. di ko jëmee ci sëriñ bi. moo ko séddale bokk yi. moo ko séddale bokk yi. ci njaboot yi. ci njaboot yi. yàlla bu ci ne nag. yàlla bu ci ne nag. sunu borom wàcce na ko sunu. sunu borom wàcce na ko sunu diggante kon nag moo tax. kon nag moo tax. sunu njort rafet na bu baax sunu njort na bu ndax kuñ booleek sa mbokk ndax kuñ booleeg sa mbokk boole la ak sa kilifa boole la ak sa kilifa muy sëb sëriñ muy sëb sëriñ ngeen bokk dëkk ngeen bokk dëkk lay jaar ci loxoom. lay jaar ci loxoom. jàpp nañ ne. jàpp nañ ne. lu mu ca defagut. lu mu ca defagut. suñ borom a ko dogalut. suñ borom a ko dogalut. loolu dana ñëw. waaye loolu dana ñëw. jërë ngeen jëf. ne jërë ngeen jëf. mën na noo delluwaat ci yitte yi. ne mën na noo delluwaat ci yitte yi. te tàllal loxo yi. sëriñ bi ñaanal sëriñ bi ñaan. sant na ñëpp. sant na ñëpp. gërëm na ñëpp. gërëm na ñëpp. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf kon fu waay toll rek nga tàllal loxo sëriñ bi ñaan bismillah